wax naa ko keroog dans la zone de des ICS wax naa ko population yi suñu mbokk wolof yi nee naa leen man nag lépp lu ñuy def ci tool mun naa am suñu tool yi wuute mais mun naa mun naa répliquer ceeb mun naa répliquer tomate mun naa bu ma jëlee peew ma taxawal bion ma jëw ci tomate parce loolu dama ko jàng. moo tax ma leen di wax toujours intérêt majeur nañ ko xool dafa am solo man message yooyu message boobu laa bëgg lancer toujours ak avantage bi nga xam ni yàlla may na la lu tax nga am avantage boobu def la jege li ñuy def fii tey ICS bu fi nekkul woon lii du fi am ñu def ñu delloo ci suñu xel toujours. lii ñuy joxe wala formation yi ñuy def bu mu fi nekkul woon duñ ko def fii mën naa am am na ñuy joxe Kédougou di mais demuñu Kédougou di ko joxe foofu fii lañ joxe mën naa am am na ñuy joxe boor ndarte mais ñoom demuñu foofu fii lañu joxe parce avantage bi nga xam ni dëkkin bi moo tax bëgg nañ nag ñu mel ni ñoom maire Assane ñu koy sol ci xel nit ñi ñu appartenir aux grands esprits les grands esprits mooy borom xel yu mag yi ñoom ci événement lañuy ñuy discuter am na nag boroom xel yu yi nga xam ni xel yu ndaw ñoom ci idée lañuy ñuy discuter mooy seen xel fu mu yem rek li ñuy defee jeex na. alors que da nga ubbeeku ci Serigne Mansour mu xelal la nga ubbeeku ci El Hadj mu xelal la nga ubbeeku ci Adja Giro mu xelal la boo defee noonu rek juum bi doom mais boo jiitalee sa xel rek wala ngay xool sa intérêt yaa ngi jëf loo xam ne nii yaa ngi lor nit ñi loolu dañ koy éviter bugg nañu ñu lancer appel boobu. ci seen programme 2023 vingt salles yu ñu réalisé yi rek vingt de classe boo ko xayma boo ko évalue mun na bokk ci remplacement des abris provisoires bi nga xam ni état mu ngi koy def te xam nga état mënul def lépp ci wetu état am na ay programme ay projet yi nga xam ni dañuy ñëw en apport dañuy ñëw di yokk ci état lu mu doon def tey ñu ngi nii di appuyer les producteurs ñu ngi nii di renforcer capacité ay producteurs kañ la ñuy jàppale état la ñuy jàppale ñëpp la ñuy jàppale buñ fi nekkul woon lii du am il nit ñi ñu delloo seen xel bu baax a baax ci loolu mooy ñi nga xam ni dañuy taxaw fu ñu taxaw rek ñoom dañuy xool lu ñu yàqee même bu dee mun war nañ mun defar fu ñu taxaw rek dañu xool mu mu gënee grave pour ñu alerter ñooñu laay waxal man sama message foofu la jëm parce que toujours da ngay xool kuy defar nga jàppale bu dee lu muy defar lii am na ci loo xam ni manqué na nga won ko fii de boo defee woon nii moo gën li wax nag ñi fi toog yëpp ay expert lañ ci wàllu mbéy kon nag boo leen joxante loxo ngeen jëm ci ICS ngeen jëm ci ñeneen avec une union des cœurs et des esprits dans une solidarité agissante lépp lu ngeen yokk ngeen am bu dee xel yi xol yi ànd nañu rek ku nekk dina sawar dimbali keneen ki te boo leen àndee rek soxla ngeen am ko waaye bu dee nag nit ñi ànduñu monsieur le maire bu taxawee fii xam nañ xam nañu lu muy wut lii lu baax la ñeneen taxaw di ne non moom lu muy def lii baaxul ñu opposé wu loolu du demale kanam gis ngeen exemple léegi tool bi mu ne implanté na ko meewaan chef lieu d'arrondissement mënoon na ko xëcc mu ne yóbbu ko Taïba Ndiaye wala bu ñuy renforcer mu ne mu def plaidoyer mu ne renforcer Taïba Ndiaye mais dafa xool intérêt majeur arrondissement bi moo fi teew mu teewal fi maire yëpp te lu mu fi lu dina leen rendre compte xam naa loolu parce que ICS bi ñu amee problème ak population yi bi ñu koy waxtaanee am na foo xam ne sax bokkul woon ci commune am waaye ñu dem na ci ba ci ñooñ mu wax ak ñoom ñu may ko cër ba tey trouvé nañ une solution heureuse mën nañu nag waa xonjoo bu baax a baax te xonjoo muy dëkk bu am solo parce que ci monographie bu mu def léegi nee na xonjoo 1920 la lañ ko sos te 1920 c'est une date historique une date repère. C'est l'émission des premiers billets de banque au Sénégal en 1920. Les premiers billets de banque xaalis bi ñuy utilisé 1920 ko commencé vulgariser fii au Sénégal c'est une date importante qui figure dans le calendrier historique du Sénégal donc dëkk cosaan te wax na ci am na ay éléments yu mu ci joxe noté naa ko j'ai bien noté ça population répartition bi dafa am solo loolu nag boo ko boo ko amee dina tax nga xam ñun ci ñi nga taxawee booy porter plaidoyer di nga xam ni ngay porter sa plaidoyer wàllu yoon nag moo wax leen euh, dara xëyu mu sotti waaye yoon bi kilifa yi ñu ngi ci te gënuma leen xam ku jiite wàllu yoon yi mboor gi la dëkk directeur général de la zone mboor gi la dëkk te xelam mu ngi fi xam naa ni am na nu muy demee rek waaye mbirum yoon yi ñu ngi ci les maires ñu ngi ci fépp fu ñu dem ci réunion yi plaidoyer yooyu la ñu lancé ñoom toujours dañuy dem réunion toujours Assane mu ngi nii gouverneur moo ko sama xarit buñ fuñ toog intérêt général lañuy lañu lañu wax loolu nag am na solo lool remercier nañ nag ICS ci lu ñu def li ah, alpulaar yi dañu ne gordo suurum buñ la mosalee da ngay ne yokkal ma waaye doo wax suuruma ICS mu ngi def mu ngi def lii nañ ko won ko def na parce que léeg-léeg sàngri naa bu amee fu yëngu tuuti bu mooy day ne monsieur sunu sous-préfet est-ce que nit ñi xam nañu li ñuy def nii loolu la may wax toujours ci suñu communication traduit ça ma ne ko waaw ñëpp bokkuñ loolu dama koy ne ñëpp bokkuñ ku nekk ak sa xel bi ngay demee mais ñu bëri xam nañu li ngeen def parce que xool leen rek nit yàlla yi imaam yi foo leen gis rek ñoom dañ jëm ci loo xam ne lii du dëkk jigéen ñi programme boo jël ñun programme bu ñu jël jigéen ñi buñ ci bokkul rek duñu sawar bu dee góor kese duñ ci sawar bu dee programme développement góor kese du dem les femmes là ñoom dañoo taxaw parce que boo xoolee sax ci seen biir dañoo am forme d'organisation dañuy jël ay initiative ñu organiser ñuy natt ba benn ba sax ñu indi la xaalis boo xam ni da ngay nga ne lii fu mu jógee ñu ne ñu li ñu doon natt moo fi nekk mu ngi nii. man léeg-léeg daf may dépassé parce que loolu forme d'organisation la te kenn du lekk nit ku lekk rek mu war la lekk nga dem nga jox leen mais les hommes là moom ñemewuñu ah bu nit lekkee ñemewuñu wax diw lekk na mais ñoom doo lekk sax parce boo lekkee buñ toogee dañu ne diw moo lekk xaalis bi moo tax ñoom forme d'organisation bu kii la. moo tax dañ leen di remercier bu baax a baax. Koño maanaam juróom-ñetti amoo la dëkk bi booy xool am na lu tolloo si maanaam euh, trois mille am et quelque am na ko xool loolu nag maanaam ci chef de carré yi mën nañu cent quinze wala lu ko ëpp ci chef de carré ñu ànd ak chef de village bi ci liggéey bi ah ci loolu nag booy xool nag xale yi ak mag ñi booy xool ñoo yem mbaa xale yi ëpp leen tuuti. waaye jigéen ñi nag ñoo xaw a ëpp tuuti maanaam ci population Xunju noonu la dëkk bi tëddee te mu nekk dëkk boo xam ne nii nekk na fi depuis 1920 daanaka mag ñi nee nañu si jamono boobu la ñu ñëwoon fii ñu toog fii ñu yëngu ci mbéy mi ak càmm gi ak lii jublu ci affaire yi njëmbat garab ñi fekkoon fii ndax permis de bi ñu fi nekk dafiy yàgg ñuy dund ci jëmbat garab ak di ko doxal ñu xam ko ñu yaru ci nekk ci loolu lu yàgg nekk ci mbéy mi nekk mbéy mi nag waa Indorama li ñu def nii ak ànd ci ak autorité Sénégal yëpp ñu ngi ci kontaan kontaan nañ ci lool di nuyu nag suñu uh, conseil municipal su su uh, Aljeka léegi li nga xam ne li ñun mbéy mi soxal nañu lool ci la ñuy yëngu xam naa nag mbéy mu sell mi ñun am xam nañ ci lu bay li ci des xanaa mooy ñu jàppale ñu ci équipement ak formation yi ñuy wax loolu bu doxee rek yaakaar naa mën na am Mansour dina ci jëw ah fii nag am nañu tuuti jafe-jafe comme kilifa yi toog nañu mënuñu ko ñàkk wax ndax case santé bi nga xam ne nag ICS moo ko fi defoon ñu ngi leen di sante bu baax ñoo ñu joxoon ndox tamit boole nañu ci ndox des na ndax juróom-ñetti amul waaye ba nga xool daanaka ñaari amul wala ñett ñoo ci ñam ñi ci des mënuñu am ndox ñu ngi ñaan ñu dimbali ñu ci loolu case santé bi ñu ñoo doon dajale di fay ci fi nekk ak di jënd ay garab woolu dem nañu baax nag dafa teew dafa taxaw ñu ngi leen koy wax bu ñu mën a dimbali case santé bi doxaat na mu war a ñu jàppale nu ci ah loolu nag amoon nañu ay partenaires ñoom jàppoon nañu ci ba ci yàgg góor gi kaa moo leen fi indi woon ah mais li ñu signé woon ak ñoom ba ñu jeexee ñu arrêté boobu ba léegi suñu doxin daal dafa dafa doy waar dafa mel ni sax case bi dafa taxaw ñu ngi ñaan soxna si nga xam ne ñu ngi dégg toujours ni muy def ci ci ci gox bi ñu ñu jàppaleenu jàppale nu ci salaamaaleykum wa rahmatullah dañuy gàddaal wax ji ndax loolu la ñuy waxoon barikal